des institutions et on nga ci institution bi ce est-ce que nous institutions économiques ce sont des institutions budgétivores est-ce que c'est la c'est la vérité. Bah, écoutez xam nga loo xamul li may wax ne rek Bien ñu ci opposition du corps wax man au cœur du système. qu'on au niveau du conseil économique social non seulement j'étais chef de cabinet mais j'étais conseiller spécial n'est-ce pas du président du conseil économique muy xool liggéey bi nga ou ni nest ko hmm. en termes de en en termes de proposition parce en vérité le conseil économique social et environnemental c'est un laboratoire qui élabore des trucs du coup de pour exécution Je dis que faut vraiment par par vision qui hein, ci inondation qui immigration clandestine bi ci euh, environnement ma dis une ci recommandations fortes. Il y a une techniques qui ko ci loxo exécutif à sa décharge maintenant. Mm-hmm. def parce que c'est nit nit ak moroomam da ngay joxe rek. man ba fa aussi sur le plan social apport du conseil économique social environnemental mon petit population man de par ma position de chef de cabinet ma xam njariñ bu mu am jëmale ko ci les populations yu yu yu yu n'est-ce pas yu ñu war nous def ko fa ci sama j'ai toujours dit que le conseil économique social et environnemental bien bien managé outil le bu baax le d'équilibre ci dëkk mhm. moo tax aussi euh, confronté la bien que tamit toj tas lu mel noonu dawul bu ñu volonté def ko bu ñu demee ba am assemblée nationale parce que am a ñi ay loi organique ay trucs et cetera etc. ko mën mais je je doute fort bien que bu ñu demee ba yegg ces institutions là dañuy demeurer non seulement ah. pour les mots, comme xam ko conseil économique social environnemental mais nous aussi ils ont un personnel politique à gérer à caser hein. hmm. ah, c'est de la politique li ñu am politique hein. aujourd'hui maa ngi le président Diomaye euh, jette un coup d'œil euh, ci ci la législative yi ci kanam parce que c'est la politique qui hmm. la indi ci station donc c'est 54% Bobu rôle dañ koy xol di xol lan moko ko yok mu baña wañéku té ils ont un personnel politique bi xamni dañ ko war a caser te mënuñoo nekk ay ministre mënuñoo nekk ay directeur général ay député lañu ñu mën a nekk wala ay haut conseil de collectivité territoriale wala ay conseil euh, économique et environnemental. Hmm. je peux me tromper mais je pense que ces institutions là vont demeurer. vont demeurer en tout cas nee na loi moo ko fi teg wala l'Assemblée nationale ñu na ñoo xaar moom mu jëlee ko fi moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, Ousmane Sonko sa position d'après discours bi dafa mel ni Diomaye dafa jox une puissance maanaam benn doole ju am doole le premier ministre le moom selon moom mooy le meilleur premier ministre de l'histoire politique du Sénégal loolu mën apprécie. mais attention ah oui il a. il a raison il a hein. il a raison de le dire. moi j'ai entendu le président Diomaye dire j'ai fait quatre ans pour faire de Ousmane Sonko un président en quinze jours il a fait de moi un président xam nga loolu la ba man ragaluma vraiment rusuma nek ci ombram hmm? ndax nek na ci ombram ay année année, année, muy humilité. Mm-hmm. bu rafet humilité pour refaire, mm. mais euh, attention man Disney, nani ni lecture constitution bi ñoom ñaar am différence hein. mm. j'ai entendu dire le président euh, Ousmane Sonko que euh, il n'a que la défense comme la ak lan mm-hmm. n'est-ce pas des naa mais j'ai entendu aussi en filigrane dans le discours du président Diomaye pour dire que tous les pouvoirs sont entre les mains du président le le premier ministre n'a aucun pouvoir de Hmm? Mais Lolo, cest dire que dans la lecture de la constitution attention parce que la constitution il a même dit la constitution n'a pas changé changé le te de cela veut dire que les pouvoirs constitutionnels mungi ci loxo le président Jomay Jahar Fay nga tudd Abdou Ndiaye Samba Ndiaye nga occupé telle position telle position c'est lui qui nomme à tous les postes civils et militaires donc ce que le président Ousmane Sonko malgré sa bravoure malgré sa légitimité populaire nga xamné ne kenn du ko contesté mmh. il s'est pour arriver là là mmh. yalla dogal li mo wara dogal li mo wara def rek moy li mo wax vraiment xam ni la fi yàlla lu mu ko jox liggéeyloo ko mu liggéey ko xam ne ëllëg tamit ëllëgu yàlla la. Mm. ndax daa bu ko moom aussi. mais gis nañ ne ci nomination yi ñuy fi ñote ne ay poste stratégie wala ay direction stratégie savoir ku mel ni LONASE euh, RTS euh, bëri nañu ah bëri nañ poste yi mm. mais ñu fa nekk directeur général ñu ngi dàqaate rek. <laughs> waaw dàq lañ fa ne. di jël li doy waar. Euh, je pense que après balaa émission bi jeex nag di ma laaj.

je pense aussi que Lolo sénégalais. lolo ngi tout. dafa rafetul. dafa tout. c'est-à-dire que lo bug bug bug melentane bul ko tegal sefu c'est ça la réalité moi je pense que là aussi les hommes politiques les hommes politiques war nañu xalat c'est-à-dire que mettre au-dessus de tout le peuple. Mm-hmm. mais aujourd'hui li ñi gis non vraiment man dama koy condamné c'est pas normal hmm. parce que takkoon un brassard parce que je suis parce que dama doon def live parce que dama doon def lii rek tey ji non man ànduma ci et je pense que voilà des choses à corriger voilà des points noirs de ces 100 jours là est-ce que une question que je bii rek ci mu dugg que c'est thème bi conclusion des euh, de la justice mm-hmm. est-ce que y quand ne le président de la République va prendre des madame conclusion yo xamante ni yu dañ ko doon xaar ne day génne loxom ci conseil supérieur de la eh magistrature waaye ne na wii nii non en tout na xool waaw ndax est-ce que conclusion yi ñu xaar ci de la justice bi moom dana tranché moi je tente de voir xam nga hein? man dama gëm ni c'est ma c'est ma c'est ma loolu bokk na ci li tax ma def choix bi ma def hmm. man dama gëm ni euh, le Sénégal manque de volonté politique rek moo fi am manque de volonté politique politique pour li ñu war a doxal ñu doxal ko mais bu dee ci côté texte la justice muy élection code de marché, fiscalité Nous, avons a textes mm. mais ce qui mm. c'est parce que les hommes qui incarnent, qui incarnent cela vraiment mm. pour couper avec ce qui s'est passé on attend de que de la volonté politique Bagné a un deuxième mandat mm. ligué pour les Sénégalais pour cinq ans je le te dis beaucoup de choses mën na changer et que les conclusions de la justice ne serait-ce que le juge de la liberté là mm-hmm. bi nga a mu ngi ci que ak yeneen mm-hmm. règne ci s'en ci règne ci le loolu génn ba nekk li nga mu ngi table vraiment am donc on espoir mm. effectivement parce que l'or rek que nous le gars yi du def ñom ñu def ko bien que ci côté nomination mom ils ont beaucoup failli appel à candidature beaucoup failli war nañ ci mëna delu ginaaw mais je pense que pour li nga xamni buñ ko voter vraiment ñu wone ni li kat amu fi woon hmm. je pense que dañ ci xar sen temps. ñu ñëw ci sa thème bi gis nañ ne depuis élection bi mu wéso bu léegi Idrissa Seck waxul Ass Babacar waxul hmm. euh, nga nga quitté réew mi.